waaw Mapé balaa balaa ñu lay bàyyi dañu gis président Macky Sall fan yi passé ñëw na fi seet si euh, sëñ Mountakha mais ñu gis ni bi muy daaneel waxam dañu ko dénk naa la euh, Sénégal euh, wax boobu yow nan nga ko déggee. wax ju rëy noonu mooy maa ngi dem mais cey bàyyiwuma Sénégal de ak maa bëgg Sénégal maa ngi dem ndax jom moo tax may dem ak ngor maa ngi dem parce que bëgguma Sénégal tàkk ëllëg ne. maan damaa bëggaat Sénégal tàkk ndax am na ñu dof ñu iñaan kañaan jàppale ni ñu naan jàmm gën troisième mandat donc troisième mandat jare leen ñu xeex taal rey dëkk bi rey nit ñi taal dëkk bi waaw Macky Sall dina euh, fii lu fi lu lan la lu ko fi jar waaye sëriñ bi yow dénk naa la Sénégal bu ma demee yàlla bu Sénégal yàqu sëriñ bi ñaan yi ma doon ñaanal ba ma am ndam li ma am def fi kenn mësul def continuer di ko ñaanal ki may wutu watu ëllëg ki fi ñëw ëllëg jàppale Sénégal oomat ko ndax am nañ yaakaar ci sëñ neex ji am yaakaar ci moom mu dégg ko Sénégal nag ndax Sénégal dafa ñor Macky Sall am na nu muy demee Macky Sall ñëwaat Sénégal koy jëli ndax doyaluñ ci moom góor gi doyaluñu te yow góor gi doyaluñu Macky doyaluñu Macky doyaluñu mën na ñëwaat am na ay atam may na ko mu ñëwaat xale la def ah mu ngi ni fàng de li di kenn du ko jeex kon nag dénkaane boobu mu dénk Sénégal Serigne Touba Cheikh Muntaxa euh, Sëñ Muntaxa Bachir Mbacké xalifa général des Mourides dénkaane bu foor la ci xolam la génnee jëm ci sëriñ bi yéene bu am rek la wax yàlla bu senegal daanu yàlla bu senegal këpp lii am ay Maleek ay Burkina yeneen dëkk yi tàkk yàlla bu mu yegg si fii li mu ñaan li mu def Alaaji Malick Si li mu def ba Ñas li mu def Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan ñi ci def ay cere baag ay mbir de gunaas ak ku nekk di ñaan sëñ Askia Mohamed Touré di ñaan te kursam di wird ah Sénégal mën na rëcc yàlla Sénégal mucc ci biir loolu dañuy daal di ñëwaat ci sa discours bi nga xam ne def nga ko léegi ci sa candidature parce que ko xamoon maître El euh, ci conférence de presse ak sortie nga xam ne yëpp mu ngi ko doon def à ne ñoom la àndal de la république euh, tey ñu gis beneen changement de discours euh, ci xam ne nag moom moo di lan moo war a recul boobu wala changement de discours nga ko nekk bu neexee yàlla. su neexul yàlla ñu xam ne looloo gën ci yow alors que maître El bi ñu gis au début bi muy lancé candidature am dafa gëmoon li mu li mu li muy gëm gëm fa muy jëm taxaw fa mu taxaw. tey laa gën a gëm yow yaa dara rek ndax man dama gëm yàlla waaye dama ni Sénégal candidat yëpp maa mën dama ne ñii de wax nag yow bëgg nekk candidat président ba ma nekk ministre ñoom ñoo ñu xëccoo bi affaire kenn ci ñoom déggul monsieur le ministre. déggoo ma de ma muy Amadou Ba muy Abdoulaye Daouda Diallo muy bunu Abdoulaye Dione muy Aly Ngouille Ndiaye muy euh, Abdoulaye Diouf Sarr muy Mame Boye Diao xaw ma muy ku mun a doon ba may nekk ministre dégguloo monsieur le ministre maa ngi njëkk xam état def naa dix ans assemblée national xam lan muy assemblée ak luy nekk avocat trente quatre ans état trois pouvoirs la exécutif la mooy gouvernement ministre def naa ko législatif mooy député nekk naa ko ñoo yem député du peuple l'homme du juin Sénégal à part Serigne am bisu màggalat gi 18 safar maa fi am juin Serigne Touba fi am bis Sénégal yëpp El Hadj Diouf ci topp. taalibeem bi am 23 juin ñu ne ko l'homme du 23 juin man nekk avocat international macha allah topp sama sëriñ bi nga xam ne moom bu nekk marabu intercontinental macha allah di dem ci dëkk yu ne di fa plaider kon man gisuma gars yi laaj réew mi ku ma ci mën xanaa kay dañ nekk ci parti bi président nekk rek ñu foog ne président moom waa parti bi rek war falu. te ñoo ànd créé Benno Bokk Yaakaar loxoy kajoor rek dañuy weesaloo loxoy kajoor dañuy weesaloo ginnaaw ma jàppale Macky Sall dama war a jàppale ñaari mandat ma di ko voteel 2012 ak 2019 waaw du war a jàppale xaritam bi jox ma lenge ma téye réew mi am naa fullaam am naa faydaam am naa xam-xamam am naa expérience am am naa mbëggeel ci sama réew am na yéene sama réew am naa xam-xam nu may def ba sama réew développé nee naa bu ma jëlee réew mi suma premier combat mooy bëggatuma jigéen di wasin di dee ndax dama dem Europe dem Amérique gis wasin di dee xeewi na Sénégal ku fi am jabar mu nekk ci diggante do sa xel du dal yaayam xelam du dal saafara bu nekk dinañ ko diw pour nga mucc da nga seet askiya mu ñaanal la seet keneen mu loo loo loo diwoo sa yaram loo kii pour pour nga mucc ak jàmm ak salaam loolu amul Europe c'est dépassé maintenant sama programme mooy dëkk yëpp même village yi na am village yoo xam ni dañuy dañuy dañuy circuler di wër village yi village centre bi ji fa benn hôpital. dafa ambulance yu wër ci village yu ndaw yi bàyyi jël sareet yi di ci yóbbu nit ñi ci àll bi ñuy dem hôpital bala yàgg ñuy dee ci yoon ak ci sareet yi loolu Macky def na ay tali yu bëri def na ay autoroute mais des na maam beneen programme boo xam ne am masul am Sénégal mooy ni ma gisee France boo bëggee dem Lille wala Marseille wala Lyon wala Nantes avion ngay jël dama bëgg Sénégal fooy dem jël avion booy dem Kaolack Saint-Louis aéroport bi pare na Ousmane Seck Ndiaye lañ ko tuddee booy dem Podor booy dem Louga booy dem Bakel booy dem Tambacounda fooy dem Sénégal dëkk yi xaw a sori Dakar nga dugg avion fay lu tuuti ay cinquante mille francs ñu cëppeel la nga gagné du temps ba pare circulation bi dana wàññeeku ndax tali yi dinañ ko libéré dafa nag ay ay ay train ay raay yoo xam ne partout lay daw boo demee Europe foo taxaw rek train romb la minute bu dee benn train jàll. métro yi da ngay taxaw jorob wala RER yi pays bi am na berte am na ma Macky wane na yoon bi man dama koy yeggali gën ko développé ndax li nga fekk da nga ko war a yokk yokk nu ñu waxee yokk ñeex yokk lan yokk cere doolu ñeex loolu laa leen bëggal def fi ay usine rek ci département bu ne usine mu ne day jël trois mille jeunes ma jël cent milliards par département nga ndam usine de cent milliards ma ma dépassé mille milliards ci première année boobu d' après Karl Marx ak Engels dañu la classe ouvrière et le moteur de développement Sénégal amul classe ouvrière ko kay dañuy développé il faut usines yu bëri gis nga boo demee Dakar bu la journal de Gaulle pacotille yi fay jaay usine na ko defar femme yi dañuy xëy di di jaay usines yooyu dañ Sénégal ñu defar pacotille yi defar lépp ñuy jëm di Mali dans l'espace UEMOA et CEDEAO di jaay di di di exporter Sénégal di développer ba jommal ñëpp dama so sama programme ambitieux pour le développement du Sénégal et pour la lutte contre le chômage. Ah, d'accord mais tey est-ce que pare nga tey euh, président de la république bi nga xam ne moom nga wax ne euh, la tabon tey lii yëpp li nga wax di nga ko daal di liggéey euh, bu choisir keneen pare nga pour renoncer sa candidature accompagner ko loolu wax naa ko ba ooyee waa benn bokk yëpp. trois cent partis politiques mu ne sep APR nee nañ ko na tànn jox nañ ko carte blanche pour mu tànn booba kenn du candidat ci APR après dégg ni Abdoulaye Diouf Sarr ak boo Aziz Diop bu ci presse bi mais man maa taxaw man kenn amul ñaar amul ñett devant Macky Sall Moustapha Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba ñu ngi toog jàlloo ñun ma ne ko président sa parti de bu ko neexee mu ne yow yaa ko tànnal waaye man doo tànnal sama parti na soo passé nee na sama militant yi nee nañ man lañ gën a bëgg na yow sama militant yi kii sama militant la sa arab yaay sama militant la Assane Thiendella sama militant la man lañ gën a bëgg na Macky ndax bu doon bu ñu ko doon bëgg yow président day gën a carte APR mais la fa bàyyi ñëw ci man ñoom bu ñu sañoon may nekk président ndax ku créé parti pour jël réew mi la kar jàllo bi dafa def parti pour jël réew mi jëloo da doo def parti rek xanaa pour dimbali ni rek ba baat bi tukki kon kay demul dugg APR benn yoon ma ne président kon ñun suma parti tànn na ma man Alaaji Diouf fu ma nekk candidat à la présidentielle ma ne ko léegi nag dañuy waxtaan kon man renoncé woon sama candidat sama candidature j'ai le meilleur profil même bu dee bokkuma APR parce que APR moomu ñu nag ànd na ndog nawle la dégal dignité parti bu nekk yeeg beneen parti bi yéen a yem ànd nañ fukki at ñaar ñu nekk jàppale président APR ah, président APR loolu jàppale président beneen parti wala ñu ne ñu ne taalibe APR déet ñetti téeméeri parti ànd ak APR jàppale président bu président bàyyee. APR duñ ñu duñ delloo dañ jukkal ñeneen ñi loxoy Kajoor dañuy weesaloo nañu El Hadj Diouf bi ñu àndaloon démb ak barki démb mu gën mu mën ci xeex bi mën ci combat bi war na mën a yore réew mi yore bu rafet kon ñun waa APR nañ delloo jukkal El Hadj Diouf ak parteem ndax mu jël réew mi liggéey ko ñun ñëpp ñu ànd liggéey ko. ginaaw ginaaw fanweeri fanweeri fan bi ñu lu ñu jàpp ni daf ko dakkal grève de la faim bi ñenn ñi jàpp ni moom jëfe na ndigal ginaaw càkkuteef ki nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké muy Ousmane Sonko loolu noo ko gisee. intéressé wu ma. arrêté na de la faim. je m'en fous. Ah il m'intéresse pas. ñun dañuy jàpp ni jëfe na ndigal. c'est El Hadj Diouf qui m'intéresse maître El Hadj Diouf qui m'intéresse. ce que mën wax sa wax waxi jaamu du wax sama wax laay wax. man waxi dof dama ci wax. d'accord mais dañu gis ni dañu gis ni également Macky Sall bi mu ñibbee dañu gis ni am na ay ay ay ñu nekkoon ci kaso bi daanaka plus de cent personnes euh, ki nga xamante moom mooy Serigne Bara Ndiaye ci la bokk Serigne Assane Seck ñoom ñëpp bàyyi nañ leen loolu noo ko gisee. seen affaire la. ah mais war a rafetlu en fait. ah seen ceebu jën la. parce que ñu nekkoon ci réanimation. ñoo xam ku ci dee ji suul la rek. Sénégal ku ci dee ñaanal la. da nga ko bëgg a tuddee xaru ñaanal la boo demee safara nag moom defe naa moo lay yaakaar libération comme jamono ji ku bàyyi grève de la faim ñu ci. ñoom waa Pastef ñu ngi déglu Serigne mun loolu la ñu wax. ñoom nekkatuñu dañ leen a aaye xottu dañ leen. parti boobu amatul. mais Ismaïla Ismaïla Madior li mu wax ni condamnation définitive loolu noo ko gisee. du ma cee wax li mu wax rek moo am. nga tëj. di leen gërëm ci presse bi di gërëm di sant da ngeen a doy waar lu ne kenn ñoo xam ne intéressé wuñu ma. ku wul dara doo dara di di dara lu fekk ma fi du ma taluma la yow ñi la fonk topp topp la comme ay xaj nañ la topp di mbow man intéressé wuñ ma